bu demee ba ne moom amatul euh, bëggatul nekk candidat bëggatul nekk président que retiré wu na su boobaa ñun je pense que en parfaite responsabilité bu nañ jël suñu wàll ne ah président li nga def ci keneen na def ci ñun ci xam ne ne kay gënuñu aay ëpp ñu compétence ëpp ñu xam-xam donc ñun nañ jël suñu responsabilité teg suñu candidature en réalité sax loolu lañ nekk honnête avec la population parce que aujourd'hui ñun su fekkee Sénégal lu ñuy xeexal mais le moom moom retiré wu na mais ñun suñu responsabilité envers la population mooy ne ñun am nañ idée pour yéen am nañ benn projet de société pour yéen moo ñu teg nañ ko ci ci pour yéen mhm. man en réalité yaakaar naa sax bañ a présenté wu moo nekkoon trahison envers la population sénégalaise c'est ça la vérité bañ a présenté wu bañ a présenté ça ça aurait signifié que on aurait trahi la population sénégalaise parce que ñun dañoo am benn programme bu leer pour ñoom mën leen donc su boobaa fekk ñun jël ñu suñu responsabilité mais ni ngeen ko a joxe président Sall mën ngeen ko joxe noonu Amadou Ba. ba lu tax léegi le problème est-ce qu'il n'est pas personnel. non y' a <laughs> <laughs> non a rien personnel bien au contraire ça veut que ñu gëm sa bopp tamit ak wóolu sa bopp loolu sama bopp moo la gënoon di bañ naa la lu keneen def ñun mën nañ ko defal suñu bopp. donc pourquoi tey jii fo euh, di xaar keneen mu def ko alors que ñun xam nañ ne am nañ compétence bi am nañ xam-xam bi pour def ko. léegi yéen fan lañ opposition. vous êtes dans l'opposition opposition en en cas second tour lu doon seen position. opposition moom ngeen soutenir. waaw bien sûr. wan ginnaaw seen famille naturelle. <laughs> mais loolu loolu c'est grave. mais ban wan ginnaaw suñu famille naturelle suñu famille naturelle le président Macky la woon gunge nañ bu mu taxaw léegi nag ñun dañoo jël suñu part de responsabilité.